xew Sénégal guddi yi ñu toll li ma wax léegi ci français moom lay faram-fàcce ci wolof dama jàpp ni senegal ñépp dañoo war a jóg tey manko pour indi jàmm ci réew dama jàpp ni plainte Mame Mbaye bi mu def Ousmane Sonko mënees na ko régler ci waxtaan entre avocat Mame ak avocat Ousmane Sonko xam nga attends mais man boo demee tribunal de Paris par exemple nga nekk journaliste nga am nga ñu poursuivre par diffamation pour diffamation parce que dund naa ko yeneen journaliste bu dund fa bu bu dund à l'étranger dund nga ko mais doo dem ñu àtte leen adduna bi dafa dépassé lool tey boo demee tribunal ba pour diffamation dañ lay teg teg ki ki la fa indi na la kii nee na da nga ko diffamé mun la waaw ñun la yow est-ce que mën nga def démenti wala est-ce que mën nga démenti mooy nga ni li ma defoon li ma li ma waxoon du wala est-ce que mën nga def rectificatif maanaam nga wax ni da nga juumoon li nga def da nga juumoon mais war nga ko mën a jijjanti wala nga def wala wala ñu ni ki ki la indi foofu ñu ne est-ce mën nga def mise au point maanaam est-ce que yow mën nga leeral parti boobu ngeen jeen ngeen juboo ci benn texte bu ngeen di publier fa ngeen ko waxee woon bindee woon ñu publier ko foofu bu ngeen d'accord rek affaire bi jeex pour pourquoi Sénégal ñu jàpp ni lépp tribunal moo ko war a régler mais lépp tribunal du ko régler lépp tribunal du ko régler pour man problème mu Mame Mbaye Niang Ousmane lan moo koy régler avocat mambay ñaar nañ jël avocat Ousmane Sonko ñu toog ok man maa ni rapport IGE wala IGF erreur am na et cetera tout cas ñu toog les deux parties trouver accord trouver benn texte de compromis lire ko mu jeex lan mooy wax lan mooy problème bi et puis Sénégal démocratie d'opinion la moom laa wax léegi démocratie boo xam ne nit ñi dañuy wax li ñu xalaat nit ki du joxe xalaat nga tontoo ko plainte plainte du tontu ci ci ci parce que du plainte rek li fi li fi xew bari na mën ngaa def démenti mën nga contester. mën nga def mise au point mën nga def rectificatif mais lépp am na mais lépp du xeex voilà beneen bi ci toog ma ni comme fukk ak sénégalais ak ñeent